Euh, mbokk yi ñu ngi leen di dalal fi si euh, euh, levée du corps ki nga xamante ni moo di Mame Less Camara nekkoon journaliste ci hôpital principal di déglu El Hadj Cheikh Gueye nekkoon xaritu Mame Less ñun am nañ naqar yoo ndax bi ñu yàlla tëral te li mu jël nag moo ko moom. ok góor bépp mu bokk ci famille benn góor la xool jigéen ñi góor ñu bëgg ko lool mu leen koy rendre bu baax a baax moom ma te jigéen ñi famille benn si ko yàlla dafa def ni ñu ngi koy xam yéen mais monsieur le na boo la jotee bien présenté le président de la République monsieur le directeur de cabinet du ministère de la communication naan appelement yi mbokk suma famille bokk ak gannaaw soxna yi ak bon maam kii ñu ñàkk ñun bu ñu xam loolu bu ñu ñàkk àdduna xam nañ gën a ñàkk sëñ yu bëri dem mais su ma dem baal man de surman bi sa koy ji la wax yow mi mbokkam day daw sa boo ko xamul woon démb xam nga yàlla baax xam ne dund ak dund góor boo xam ni bu ñu daan waxtaan ak magam jigéen yi ñu ngi sama gannaaw kenn du dund dañ waxtaan ci suñu biir parce que nekk nga am activité yooyu dund nekk ci ngëm-ngëm boo am ci loolu sax ca ñu xaw ni loolu ñuy def bés ma ko wax mu ne mu ne kuy suñu maam wax nga dëgg de Cheikh Oumar mooy suñu maam Cheikh Oumar Fouti daal umul kay bi jaam alwaar moo jur maamam jur ndeyam ma dem te je me dara dafa fort ku ci nekk ci activité ya nga nekk lu la nekk loo tàllal loo ko am ko fa moom mii man mii maam les mii mais xam nga lu fa nekkoo servir notre pays ci service boobu la nekkoon sans prétention nag sans ostentation ma ngay def te xam ne dafa war a def rek lan moo ko ci fekk toppatoowul loolu lan la ci mën am moo gën a xam li mu ci mënoon am parce que muy jàkkaarloo tous ces biens de ce monde-ci dafa tourner le dos à ces biens sax pour dara wutul dara day dem ba nga sax xam ni sax suñuy mbokk yi dañuy xaw a xeet ci lan yéen xanaa bëggu dara parce que da di toll foofu ñu ci àdduna lu ngeen tàllal loxo ndox wa tàllu sax ñu tëdd loxo teg ko xam nañ li may nañ ko départ bu metti mais suñu famille yi nii la ñu xamee nii la ñuy àdduna dañu ko accepté boo départ bëggu dara ba yàgg ñu ah est-ce que du mooy lii mais du mooy loolu moo leen may bi wóor na moo jàll ñu ngi bokkal bees bi toog ku ci nekk bëggoon nga fi ma taxaw nga taxaw fi sànni fi kàddu bu ñu ko doon def duñ fi jógee bekkaay xam naa li nga bëgg xam naa li ma wax xam naa fi mu la toll woon keneen boo xoon dana wax lu ni mel wala lu ko raw ñëpp ngi toog fii ku ci nekk daal man sama dund kii moo ma jaaral yoon moo teg sama tànk yi moo ma jox lii moo ma def loolu lii bu amee lii moom laay gërëm gannaaw donc bëggoon nga taxaw wax dañuy ñaan rek ñuy jógee fii beneen kër dama ñaan ku ko bëgg ñëw taxaw di ko wax fam bi dégg tontu leen mais du ma wax ni ñu ngi gërëm tam autorité officielle yi am président de la république parce que nag maam les bu gàtt waaye ci dundam dafa am yenn yoo xam ne ay gàllankoor yu ko ci arrivé rek donc Abdoulaye taxaw dimbali ko ba France la yeewoo ci comment bu mu nekkoon xëy na loolu mu ko faj moo ko dimbali ba mu dundaat ak mu dund man di toog laaj ñu ko dara ñun te fu mu déggee ni maam les am na jafe-jafe yónnee na léeg-léeg mu yónnee lu takk loo xam ne war nañ ko mën a faj est-ce que sax na fi mu war a dem yëpp loolu ya xam ko ñi mag ñi ba ci ñi ndaw kenn da xaw nañu maa ñu mën a def defar nañ ko maam des bu doon ay alal garab ak faj du ñu toog fii di wax moom kon ñu ngi fii toog ci ñun waaye yàlla moom moom yàlla moo ba mu yem gërëm nañ ko ba fi gërëm mën a yam waaye man it danaa gërëm famille bi ñu ko taxaw à commencer par sa tante sa sœur ni ñuy toog fii gërëm ko si jabar ay jabar adduna nag dafa mbay mooy débat lépp ñu mën a wax tey bés wax lu baax bés bu sargal bés bu ñaanal ko bés wax lu may baax baaxal on n'en pense pas moins parce que dañ ko dee yàlla baax ko ñaanal. nga xam naa ne Sénégal yëpp dinañ def seen bopp ñaanal ba fa mu jëm gënal ko fi mu jóge woon jërëjëf